sali sunu mbokk internet yi ñoo leen di nuyu di leen ziar di leen wax ngeen abonné bés kolos bi gars yi nañ leen révélation yu Adamo def doy trop si Bara Seres Seres ak Sokhna Seres ak Kaliphone Sall nañ leen déglu doy na waar salaamaaleykum gars yi salaamaaleykum gars yi wax naan Bara no stress nit dëgg la arrêté leen Bara no stress du dara lu dul saytaane bu mag la ku ko neex rek lay faral baara ku ko annoncé rek lay faral gisoo coowul Kaliphone Sall lii Kaliphone Sall la faral ba tax mu woo ko téléphone di ko laaj ay conseil maanaam Kaliphone la àndal moom day mbubboo Sénégal yi naan du politique mais baara noo stress soko noo stress ak kalifon Sall ñoo yem benn lobby Macky Sall la ñu liggéeyal baara moo gën a xam ne Kaliphone Sall li mu saaga yaayu Ousmane Sonko mu sell mi wax ko Ousmane Sonko ci wax ju ñaaw ak ay waajuram bu doon ci bi na ko Kalifone Sall Ousmane Sonko mi ngay saaga du sa morom yaa ngi dégg du sa morom jox ko cër kilifa la nangam nangam baara defu ko xanaa di wax ay naan waaw sénégalais yi nangam barki alxuraanul karim baara noo ester saytaane bu mag la naa féq la yéen a ngi fàttali ko coowal titi li ba ci soko noo ester si waxee est-ce que teg na soko naan ko soko lu tax ngay wax lii titi nangam nangam tegu ko fenn déedéet man la avisé bàyyi soko du wax soko dëgg du wax dëgg ñu ko arrangé rek lay faral bàkki alxuraanul karim saytaane la coowul na bu das lii gis ngeen coowul na bu das lii mi ngi protéger na bu das yéen xamu leen baaraanoo stress da leen di utiliser da leen nax man li may wax dëgg la barki Serigne Babacar Sy billaahi wallaahi wataalaahi Kalifon Sall lay faral moom la àndal moom la faral moom la àndal moom miy saaga Ousmane Sonko Kalifon Sall mii moom la baaranoo stress àndal sokonoo stress bu saaga ndeyu nit ñi wala mu saaga Ousmane Sonko da ciy d'accord mu sa affiché sokonoo stress ne ko arrêté mu sa affiché baara ko arrêté billaahi même lobu bi seddu leen ma leen di wax da ngeen commencé histoire ngeen xool baara comportement moom ak ni muy doxalee ku ko annoncé rek lay faral dafa soxor Adama dafa ñaan billahi wallahi wa taala li ma wax nii dara du ko dindi baara noo stress naafiq la saytaane bu mag la point final sénégalais yi naan ko nag ah ay baara nitu dëgg la merci baara barki Serigne Babacar si yéen tamit ay naafiq ngeen Nabou Dash nag maa ngi ñëw ci moom prochaine vidéo wax leen lan moo tas sëy ba ak lan moo ko waral ak la ca xew xaar leen ma waaw merci. gars yi ñoo ko déggandoo nii la demee doy na waar trop Adama wax na lu doy ñoo leen di ñaan ngeen abonné képp koo xam ne seetaan nga vidéo bi te abonné woo maa ngi lay ñaan nga abone bés kolos bi jaajëf.